بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم التسليم يوم الأحد الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام على نبيه سفيه العالم وعلى آله وصحبه ما أهمل فوق الألواه والأوراق القلم أما بعد بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زياره كلفه gi

d'une part d'autre part njiitul réew mi président Macky ak homme politique yeeg société civile ak ñëpp rek ñëpp lañ koy adressé ngir li nu bokk muy suñu réew mi ñu jàng ni ku tedd ki dafa waxoon ni xadda anqanil yow ma ahli wal watan an darki ma li anwari wal fitan di taasu ci barket bu xam jooju boo xam ne dara gàllankooru ko ba eggagul fi mu war a yegg fi mu bëgg a yegg lu dul rek bëgg réewam ak ñooñi réewam moo tax rek nu bëgg nu delloo si xel yi xam ni ku am ku mel ni moom lépp daje ci moom léppi àdduna te baax dafa daje ci moom jaare fi mu jaare ci yenant beeg alquranul karim wax yàlla lépp daje ci moom ba mu ne malaka ni dunia uxra samadu maa hindahu lextaarahu muhammad lépp loo xamante ne bii yenent bi tànnal na ko ko ci yàlla rek muy le bien de tous les jours ne ma koy waxee de tous les mois de tous les années de tous les temps sahaat yeeg awqaat yi fu aw yu nekk rek ci waxtu yeeg semaine yeeg weer yeeg bis yeeg guddi yeeg bëccëg yeeg temps yeeg moment yeeg yépp yàlla jox na ko ko mu jàngal ñu bi ñu fi yàlla indee ni mu nu diggalee ngir ñu dunde ko fii yàlla dafa am sànni wuñu fi rek bàyyi nu fi dañu ni yóbbu naa leen fi waaye dunde leen nii dunde leen fa nii ba ku am problème rek yaa ko teg sa bopp budul balaa balaa nag dina jóge ci suñu borom mu digal ko malayika yi mu xewal ko ci ngelaw mbaa ci ndox waaw ba ci catastrophe ngir nattu doomu aadama bi waaye nag bu boobaa dañu lay observer malayka yi du xool lan mooy doon sa réaction ndax di nga accepter volonté volonté divine wala doo ko accepter waaye nag bu ñuy jaawale volonté divine ak volonté humaine volonté humaine nag en général surtout sur le plan politique ci jamono bi nu toll waaw dañuy jëfandikoo idéologie yoo xam ne dañ koy jéggaani waaw jorul may lim naan benn ñaar ñetti ñeenti jaru ko ñun ñëpp ko xam ñu koy ñu leen di tuddee temporel ñu koy tuddee temporel di ko tuddee politique di ko tuddee démocratie yooyu xew fépp ci àdduna bi gis ngeen ñun ñëpp gis nañ la xew ci àdduna bi waaw te lépp démocratie ak pouvoir ak intérêt ak liberté moo ko jur moo xam ci ñu xonq ñi moo xam ci ñu weex ñi moo xam ci ñu ñuul ñi moo xew ci àdduna bi yëpp ñu jàpp ne dem fii deme ne nii mu deme nii wax dëgg yàlla te nun nu jàpp ne noo am ku kenn amul wax dëgg yàlla nanu wëlbatiku nanu wëlbatiku bu nu ci complexe fekk moom dafa am idéologie am dafa am doctrine am hmm? nañ dem ci naaju naajul xadda nañ dem ci masalik nañ dem ci matlabul fawzayni

Non la waré demel nituk ki ak ki nga nituk la toujours lañuy vision du toujours lañuy bokk religieux réunir wax ci réew mi les hommes politiques def noonu mu dialogue spirituel ak dialogue temporel wala dialogue politique ñaari document ñu xol yaa man di ci sama gis-gis defe naa ni li mën a defar réew mi mooy document bi jógee ci ñuy wax ni yàlla def ni yonent bi lii ak lii ak laa yonent bu nenul lii ak lii ak laa waaw te it bu nu fàtte ni dëgg la réew mi ñëpp duñu ay jullit waaye bu dee yonent yàlla Iisaa fa yàlla di yonent yàlla Muhammad fa yàlla ak di yonent yëpp yëpp yëpp fa yàlla ñoo bokk lu ñuy wax mooy laa ilaha illallah waaye nag muhammadu rasulullah la ñoo bokk lu ñuy wax yonent yëpp ñoo bokk lu ñuy wax suñu boroom la mu waxoon insa daf ni ko am na yonent buy ñëw wax ko saw xeet ba mu wax leen ko boo xam ne <laughs> muy mujj ñëw ahmadu lay tudd la waxoon insa ba demee ci alquran fekk ko kon nak idéologie yi nga xamni yag na fi wax deug yalla tuba bi biñu fi joggé sango remplacer len fi mën ta wuti lenen nek ci lolu fi tuba bi bayyi ba sunu jonne tay kay wax deug yalla nonu set sunu li nga xamni daf no jégué lool wax deug yalla ta mëna defar waxuma la réew mi way dafa mëna defar afrique ak aduna wa kon nak lolu <laughs> dafa nani ñaari waxtaan yu bokkul la wara doon waaw lii dal mënuñu ko ñak baña wax ndax réew mi mo tollu fofu xoddiku nak ca bala ngay lakkle wala fa ko wax xoddiku ca bala ngay lakkle way do baye ba jaan ji ñew ba nopi ba dem nga naan fi la jaan ji jaar fi la jaan ji jaar wati fa ngi ni kenn du ko def nañ jéem boole xol yi détenu yi ñu nekk ci cache bi ñu bàl leen leen ci yermandé ku tedd ki yermandé ku tedd ki dafa ëmb lépp ñu baal ñepp génne leen ni ko aji bu waxee rek amna luma ci aji bu di wax manam ki meroon ak ki merut ak ki tooñ ki toñu yépp ñu faté ko daldi di waaw recommencé waat à zéro bu ko défé dem ci joxoñu ko ki rek waaw légui solution am ben problème bu amul solution amul xana nga nang ko wala nga bañ ko nang ba nga gis ko wala nga bañ ko gis waaye problème bu am solution ma nga né hamdan li mun zile dona warda yi waaye wamun sili shifa yi warda waayi te di kee ko waxtu matlabu shifa yi te ngeen baal ma salaamu ala man itabaaxal huda